jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey comme niñ leen ko waxee ñoo ngi fii ci eh, Touba Aliya ci conférence bi nga xamante ni Serigne Moustapha Ndar moo ko fiy amal macha allah ci seen taxawaay bu rafet ci taxawaayam bu rafet ku fi ñëw rek saxool xol sedd lool ci ni nga xamante ni taxawoo li nga xamante ni mooy alxuraanul karim ci subaak léegi nag ngeen gis ñu leen di indi li nga xamante ni moom moo fee xew fii ci conférence waaye nag ñu ñëw fii ci waañ wi. ndax it euh, sëñ Moustapha naam waxtu yu conférence bi di jeex na fekk ñëpp ci mbooloo mi dem waaye teewut mu defar ay bernde yoo xamante ni ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk nañ mën a xewlu bu baax a baax a baax ñëw nag euh, ci waañ wi fekk fi soxna Roqoy Diop moom mu jiite li nga xamante ni mooy liggéey waañ wi ñu fas yéene koo dégg suñu micro rek mu wax ñu ci digganteem ak sëñ Moustapha waaye wax ñu it euh, ci jàngat bi mu am ci lii nga xamante ni sëñ Moustapha mi ngi koy amal fii ci Touba Aliya salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen ñaanal seen taxawaayu yàgg ah, waañ mi nag ñi ngi ci waaye sëñ Moustapha Diop moom nun amuñu payam ndax mi ngi ci alxuraan ci Touba te bépp dooyu baay bu ne ci réew mi dalaa ñoddi taf la ci boppam jiital la ci alxuraan ji dugal la ci rëccuwun luñ ko doon amee danoo sant yàlla ndax noo ngi woon ci yoon wu neexul yàlla xam naa mu ñoddi nu dugal nu ci yoon wu ci siraatal dugal nu ci alxuraan ba ñëpp fàtte nañ bon gu naroon a def fàtte nañ ko ndax sëñ Moustapha Diop bépp buñ koy xool itam dañuy mel ne ku ne àjjana ndax mu Moustapha ji nañu ko waa këram ji na ko ñoddil nu ci alxuraan ji këram gii lu fi xew dañuy woonu doomi baay yëpp ñu toog yi ñoo mu teg ko suñu loxo bernde yi kàlla dara du manqué day rey nagam ndugg mi tubaarkàlla lépp noo koy def maa ngi ci waañu maag samay rakk ñoom lu ma leen wax man daanaka damay toog rek samay rak laa am waaye ñu ma déggal lañ dañuy liggéey fu ma leen yónni ñu dem lu ma leen sant ñu def ko te kenn du wax dara kaf ak ree ba ñibbi jot soxnaam yeet bëgg nu di nu teral taf nu ci seen bopp nun daal sant nañ yàlla ban amee Moustapha Diop Ndar di ko ñaanal fanam wi diw doj te buñ ko mënoon a tëggaat fi mu ne nii day am juróom-ñaari at ne ci daara ji ndax danoo kontaan mu dugal nu ci yoonu bu baax woo xam kenn ku bëggoon a bon ku ne fàtte nga ko ndax sëñ Moustapha Diop noo ngi koy sant di ko ñaanal xéewal gudd fan wér gi yaram noo koy ñaanal moom daal lu mu bëgg nisal ci yoonu alxuraan rek yàlla na ko yegg ba tiim njortam ñoo ngi koy ñaanal daal moom daal amuñu payam ndax ñun ñëpp danoo dugal ci alxuraan fi mu ne ba fàtte nañ lu naroon a def ci lu bon baax lool yaatu jiitanu taf na ci boppam lu mu nekkee ñëpp xam ko lu mu am nu am ko nun daal noo ngi koy sant di ko ñaanal barke ak barakatu barke sëñ Touba. Euh, ñu nekk ci waxtu koor kenn ku nekk xam na ne waxtu yi ñu féetewu ci wàllu berne dina metti lool waaye comme ni nga ko waxee kóllëre gi leen sëñ Moustapha ji mooy sabab bi kenn bu nekk boo fu nekkee lépp loo xamante ne métti la doo ko yëg liggéeyu waañ nag rawatina ci weeru koor doon lu metti waaye mu mel ni jëmi conférence bi bernde yi yokk bu baax a yokk na bu baax a baax ndax at mu dañuy gën a yokk te it bu nekkee ci waañ wi ñun duñ yëg coona danoo mel ne ku wóor liggéey bi daanaka duñ dañuy tiim waaye duñ ko yëg ndax suñ xol dafa sedd ci boole gim ni ci boole ba duñ yëg coono duñ yëg dara berne bi nag at mu ne day gën di yokk moom at mu ne ca kaw ca kanam la waaw at mu ne li ñuy dugg dañ ko yokk waaw jërëjëf maa ngi leen di sant yéen ñi ñëw nag ndax ndaw yu baax ngeen yu sawar ngeen yu mën a dékku lim leen di liggéeyloo sant naa leen di leen ñaanal di sant sama rakk yi di leen ñaanal nag barkeeg barakatu jërëjëf soxna Roqe Diop ci kaddu yu matala yooyu mbokk yi lii nag doonoon benn pàcc ci waañ wi macha allah lépp loo xamante ni am na fii ci ah, conférence bi nag niñ leen ko indil kon nees tuuti kon ñu dikkaat ak yéen suñu yeneen élèves asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.